salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi ñu ngi leen di nuyu bu baax ci turu sëñ bi te di leen rafetlu seenub teewaay fii ci màggal gi ñu yóbbi nag ñu ngi koy tàmbalee ci turu alxalifa cheikh Mouhamadou Mountakha li ci teg sëñ Mor Gaawaan nga xam ne mooy xalifa borom Gaawaan li ci teg sëñ Abdou Khadir Jibi xalifa sëñ Mudu Maamun ak rakkam sëriñ Abo ak sëñ Cheikh Anta ak mboolem sëti sëñ Modou Mamoun yi di leen di jottali ab nuyoo ci seen ndigal ak seen kàddu waaw moom day màggal gi di moom noonu la ñu ko waxee rek ñu ko tàmbali woon keroog talaata la set ba tey bi ñetteel bi fan ah, bis bu njëkk ba nag wax dëgg nit ñi ci lañ tàmbali woon a ñëw jotoon nañoo am six cent et quelque six cent soixante-dix-sept kaamil amoon nañ ko ci bis bu njëkk ba di bisu talaata ba euh, bisu démb bi ba nga xam ne mbooloo mi day dolleeku yaa ngi nañ neuf cent kaamil mooy li yaa ngi ci biir Darou Salaam lépp nag hadiyaale ko na Ahmadul Xadim ak rakkam yu baax yooyu awatina maam Cheikh ant borom Darou foofu daal moom fi lañ tollagul. njàng mi moom li nga xam ne ñu bari bokk nañ ko xam mooy sëriñ bi li nga xamante ni tubaab bi jël na ko yóbbu di jiim ci moom ay pexe jiimee ba seeni pexe yooyu suñ boroom mi ko musal ca delloosi ko yàlla daa dogal mu dikkee mu wàcc daaru salaam daaru salaam gi nga xam ne mooy euh, mën nañ ne dëkk bi mu njëkk a sànc boobu foofu la jël siwaat fekk fi rakkam ji ñuy wax maam Cheikh Anta maam Cheikh Anta moomu nag doon ko ganale ganale goo xam ne yaakaar naa siiw na lu ne def na ko rek ngir kontaante ci ñaari mbir benn bi mooy sowe sowe ko nga xam ne islaam sowewu na ko ak euh, magam ju baax jooju nga xamante ni ñibbisi na dellu ci réew mi ñaari mbégte yooyu moo am ci moom ba tax mu lu ne rek lu mu xam rek def na ko ci diggante berndeel ak jàng alxuraan sant ko yàlla suñ borom. loolu nag mi ngi amoon 1902 1902 la xew-xew bu mag boobee amoon donte nag li ci tegawaat ci ay at yëpp dikk nañ ba ay ay ay 30 39 su ma jaawliwul ci la suñ mudu maamun amee ndigalul nag. Eh, di ko màggal ba suñ jantu tey xam ne borom gaawaan mi nga xamante ni moom la ci laa yoon digal ba mu jox ko jot na ko fekk mel na at waaye suñ wudu maamun moo ko doon màggal ba suñ bisu tey ngeen fekk ñu nekk ci Cheikh Mouhamadul Mamoun mii mooy jëwriñ ji eh, lam ci waxoon doy na sëkk dañoo nekk di ko wéttali ci liggéey bi rek waaye kàddoom yi moom daanaka matale woon na muy kàddu yoo xam ni eh, bu ngeen ko teewloo déglu ko rek lu ci baree bari mën na leen ko caa leeral ndax cosaanu màggal gi moom mooy 1902 ci la sëriñ bi ñibbisi woon waaye wax nañ ni gannaaw gi la sëriñ gaawaan feddilwaat ndigal loolu ci Cheikh Mahamadul Maamoun ne ko joxaan nañ la ndigal bis bii dee ko def muy sa bis boobee ba tey waxtu wu ne ñu ngi koy màggal saa su nekk it mbokki taalibe yaa ngi ñëw ñi di leen sant ci biir loolee ci cantuk sëriñ bi sëriñ bi waxtu wu ne mi ngi leen di jottali seen i cant muy mbokk yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal barab bii di Daaru Salaam ak fu fi sëñ daara nekk ak fu ki donga daara nekk rek sëriñ baa ngi lay jottali ay cantam ba ci sunu mbokki Touba yeeg Mbusoobe ak mboolem li war diggante Touba ak Daaru Salaam fenn fu ne ay mbokki taalibe ñu ngi fay jugee ay sëñ daara ngi fay jugee ay donga daara ngi fay jugee ñoom ñëpp ngir ànd ak sëriñ bi ci bis bi waaye sëriñ baa ngi leen a xamal ni ñoom yëpp yëg na seen teewaay te mi ngi leen di jottali seen cant waaye fàtte wulit waa kër sëñ moor May Cissé yi nga xam ne ñi ngi njaareem di ñoo xamee ñi yàgg cëroo lañ ci Alxuraan bari na kilifa yooyu dégg ci dëkk bi ñoo xam ne ñu ci baree bare jaar nañ ci daara joojee ba ci waa kër sëñ Malick Dieng ñoom it at mu jot ñu ànd kook ñun ñoom ñooñee ñëpp sunu mbokki boofeel yeeg caaween yeeg bàyyiwuñu kenn ñu waa ndilikeeg ñoom ñëpp sëriñ baa ngi leen di sant di leen gërëm mu mel ne na lim la boo xam ni at mu jot ñi jàng waaye at mu jot day gën di yokku saa su ne la ñuy jàng bu nu xëyaatee la ñuy jàngaat mooy gën a takku lañ jàngoon te biir njàng moom it du caaganug bu bare moo waral ñuy tudd lim bi waaye nañu xam ni pasteefu taalibe yi ak seenu bëgg ci sëriñ bi ak sëriñ bi la mu waxoon ni sama tey ju ne day gàcceel sama démb moo waral muy demee noonu waaye bu doon lim gu bari mën naa bu ngeen dikkee danañ fi wax lim yoo xam ne nii doomu aadama bu ko déggee daanaan loolu nees koy mën a jàngee waaye bëgg mu sell ak bëgg mu tege ci yoon moo tax sax léeg-léeg ñu wax ñu lim yoo xamee ni duñ ko ci boole ngir lépp rek wagar mbir mi ak bëgg rek ni ko sëriñ bi bëggee te lim bëgg mooy li yenent bi bëgg mooy li yàlla bëgg ñu sàmmonteeg loolee